sëriñ bi ñu ñëw indi nuyoo ak ziare président la République nee na bi ñu ngi ñëw di indi nuyoo ak ziaru président Macky Sall. ci bés bu ci bés bu tedd bu màgg bii. ñu ciy fàttaliku suñu sëriñ. nee na ñu ciy fàttaliku suñu sëriñ. président mi ngi lay ziare bu baax Mbacké. nee na président mi ngi lay ziare. di fàttali kóllëre sa diggante ak yow ak njaboot yëpp. na mi ngi fàttali kóllëreem diggante yow ak njaboot gi nga ko bokkal yëpp. di la sant di la ziare. nee na mi ngi lay sant ca di la siyaare. ci jàppale bi ci liggéey bi nga xam ne moom suñu nee na ci jàppale bi nga koy jàppale ci liggéey bi nga xamante bi ne suñu borom moo ko teg ci loxoom. moo nee na moo tax mu ne bés bii. faaw mu yabal ko fi. pour fëttali kóllëreem pour fëttali kóllëreem seen diggante. ak yow ak yow. waaye sàkku ci ñaan. ndax bés bii ñaan la. ndax bés bii bésu ñaan la. xam na ne su na xam na ne bu ak jotoon mayoon. moom mooy teewal boppam fii ci bis bi. waaye nag xam nga ne li ko gàllankoor. waaye xam nga li ko gàllankoor. nekkul sax jamono yi nee na jamono yi wax sax ne nekkul Sénégal. moo tax mu yabal nee na moo tax mu tànn délégation bi yabal leen fi. pour ñu ñëw siyaaram ko. ñu ñëw indi ko siyaaram. bokk ak yow bés bi. bokk ak yow bés bi. sàkku ci ñaan comme ni ko waxee léegi. sàkku ci ñaan comme ni mu la ko waxee léegi. ñaanal la yow it nga ngi la ci ñaan yow itam nga yàgg fi lool te yàgg koo woote. kon boog sëriñ kon boog sëriñ bi. président mi ngi lay mi ngi lay siyaare. mi ngi lay ñaanal. mi ngi lay ñaanal. di sàkk nga ñaanal ko. bu baax a baax. ba yéene yi nga xam ne am na ko ci réew mi. ba yéene yi nga xam ne am na ko ci nee na mu mën koo mottali ak jàmm. nee na di sàkku ak a ñaan. nawet bii ñuy jeexal. nawet bii ñuy jeexal. nga ñaan suñu borom may ñu muurloo ko ak jàmm. réew mi am na jàmm. waaye suñu borom yokk jàmm ji te loolu yëpp nekk ndimbal ci njaboot bi yëpp waaye ci àdduna bi yëpp ndax lépp xaj na ci bis bii nee na kàddu yi moo nekkoon loolu kaddu yi cant la kàddu yi siyaar kàddu yi feddali kóllëre waaye kàddu yi sàkku ñaan nee na mi ngi lay ci yóbbante nee na mi ngi lay yóbbante ci waajuram ci waajuram ci kilifaam ci kilifaam si Mamadou Mountakha mu sëñ Bassirou nee na mi ngi koy sant bu baax di ko ñaanal yàlla mu yàgg fi waaye di ko ñaan mu continuer ñaan yi mu koy ñaanal jërëjëf Mbacke nee na loolu moo nekkoon kàddu yi Mokhtar Mbacke nee na asalaamualeykum ñu dégloo nee na mi ngi nuyu ministre bii di daan Diop nee na doom day mbokk la di xarit mi ngi nuyu it Serigne Cheikh Abdou Bali Mbacke mii mu ngi nuyu soxna Ndeye Sali Diop moom it di ministre bi nga xam ne moo yore mbirum jigéen ñi nee na mi ngi leen di nuyu ak ñi ngeen àndal ñëpp mi ngi leen di nuyu nee na it mi ngi leen di yóbbantam nuyoo ci président de la république moom mi nga xam ne moo leen tànn yónni leen ci bis bii ngeen tiiwal teewal ko ci bis bu rëy bii nee na ndegam ñu leen dikk leen rek dikk na moom ci boppam nee na mi ngi koy sant ci loolu yi te di ko ci gërëm nee bis bi nag day bisu sëriñ Touba di màggal goo xam ne yoonu mur yëpp la conserné ndax Seyxul Xadiim moo tax ñu di ko def kon képp ku ci teew walla nga def ci dara. nee na dana la sant dana la gërëm mu ngi ñaan it mbooleem yiw yi juddoo ci jaamu yàlla yiñ fi def ak alxuraan ak xasida ak liggéey yu baax yi yiw wu ci juddoo suñ borom boole na ko nun ñëpp daj topp waa réew mi nee na nag mi ngi dellu di nuyuwaat président de la république nee na xam na ne jox na màggal gii ab cër ndax it mu jot mu def nii mu def dana yebal kilifa boole koog ay kilifa ñu teewal ko ci bis bi nee na loolu yëg nañ ko mi ngi ko ci sant nee na mi ngi sant it autorité autorité yi nga xam ne ñoo ko fi nekkal yépp ci région bi ndax ndax nee na ndigal yi ñu leen joxoon yépp gouverneur jox leen ko defe nañ ko nañ ko bëggee nee na loolu it kon ma ko ci sant di ci sant it nag ñoom ñoo yi nga xam ne ñoo doon jëfe ndigal yi nee na it mi ngi leen di ndokkeel ci xew-xew yi weesu la ci solo mooy gis na ne loola wéy na te lépp amee ci jàmm ak salaam loolu daal moo ko ci neex muy jàmm ji ak salaam ji lépp egg ci jàmm ak salaam kon nee na mi ngi kii mi ngi ci ndokkeel di ci ndokkeel suñu bopp ak réew mi yëpp ndax moom mii de réew mi rek. moo ko intéressé lépp loo xam ne xew na ci réew mi daf koy yëg moom njabootam ak ñëpp kon ndax bu doon jàmm ñoo ci ëppale ndax ñoo ëppale njaboot bu dee aw ayit kenn di leen ci ëppale kon ndokk bi lépp tegee ci jàmm kon daal jàmm jooji yiteel la ko de nee na yàlla wuy te sax dakk ci réew mi nee na mi ngi leen di gërëm di leen sant jërë ngeen jëf nee na mu ngi sant président di ko gërëm di bàyyi xel Serigne Cheikh Abdou doomam ji nga xam ne moom ngeen àndal fa tabarakallah mooy léppam la tabarakallah